ñu ngi am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Gora Khouma mu nekk secrétaire général bu union de routiers du Sénégal monsieur Khouma ñu ngi lay nuyu di la wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. waaw Gora Khouma secrétaire général la union des routiers du Sénégal. Mhm. bokk ci CNT mhm. mhm. ñu ngi lay fay yow yaa sa auditrice ak auditeurs yi xam ne tey jii ñu ngi euh, déglu réew mi FM. Mhm. Gora Khouma jamono ju ñu toll da ngeen entamé benn mouvement d'humeur précisément am ngeen ñetti fan yoo xamante ne da ngeen fas yéene def grève tey jii bokk na ci li ngeen di sàkku moom moo ko ñu respecté li nga xamante ne moom moo di règlement 14 bu e ma waa bokk na ci li ngeen di gën a euh, sàkku tey jii lan nga ñu mun a wax lan moo nekk ci boobu les réglement bi nga xamante ne dafa jur coow. c'est-à-dire euh, boo xam ne bi kuréel yu bokk UMOA ñoom ñoo ko ñoo ko tënk ñu séddale mu war a nekk benn dogal boo xam ne bi réew yëpp a koy bokk mais euh, problème bi kenn ku ne xam ne euh, bu la CESCRAO la confédération la fi di fonctionner mais dañ koo tënk mais dañ koy dox ndànk maanaam dañuy raam ba bu suñu waree dox ñu dox bu ñu eggee ci daw daw ñii réew yëpp dañoo egg dañoo toll ci raam Sénégal non seulement raamul non seulement doxut mais daa daw premier yeneen réew yi moom ñoom ñu ngi toll ci raam moo tax mënuñu ànd beneen bi mooy euh, dafa am lu tax port Sénégal dox dafa am loo xam ne dafa tax transport Sénégal dox mu muy fretu Mali bi am na jamono ñaanu luñ ko benn yoon kontaan kontaan ñu aussi ci fitna bi dalañ ko diwaar du fitna buñ kontaan baa buñ leen buñ leen ñaanal hmm. mais dana leen dafal ñu xaritu Mali bi jóge Côte d'Ivoire ñëw Sénégal tax suñu port gën a avancé suñu transport gën a avancé léegi nag ci politique kaw politique dem nañ ba Côte d'Ivoire euh, seen dëkk mi ñu am mais lañ nekkoon ci xaritu Mali bi bëgg nañ ko récupéré mhm. te Côte d'Ivoire bokk ak Sénégal fret bi ci IMO ñoom ñiy raam di fexe nu ñu mën a bégale Maliens yi mm. ba seen fret de soit seen port seen port bu doxee sa numéro dox Sénégal moom li ci loolu ma mhm. nga lijjanti raaye règlement 80 bañuñu ko mais nag ñëpp di ab pratiqué dañ ko bu ma doon jox misaal tey jii góoru xuma bu fekkee ne moo nee na oto góoru xuma bii ñaar fukki tonne la war a yeb wuru ko passé maam ñeenti acier maanaam ñeenti ruu ci misaal pour ku xamul léegi man bu ma yebee ñaar fukki ñaar fukki tonne bu ma ñëwee du ma tax a mucc ndax dañ ne ma pëne bu nekk daa war a yeb juróomi tonne wurul ëpp wurul yées mhm. te loolu nekk na problème ci ñun ndax pièce acier maanaam day tolloo waa man góoru ma man ma war a yeb maam commande fukki tonne ak juróom moo war a yeb ciment moo war a yeb fer moo war a yeb boisson moo war a yeb lii moo war a yeb lii mais l'essentiel li may def naa fexe ba bu ma dépassé ñaar fukki tonne yi léegi nga bàyyi fa ñaar fukki tonne fu bu ma yéegee pneu yi mënuñu tolloo ñu ne nag dañ lay sanctionné parce que dafa maa waroon naa mën juróom ñeent la ou bien waroon naa juróom juróom benn la juróom benn tonne la kon dañ lay sanctionné loolu nag dañ ne ñun séddale chargement ci ko te séddale Sonac boobu mënul nekk ndax da ngay gis boo xam ne ay moteur rëb saa nekk ay télévision nekk ci ay ay taabal nekk ci ay lu nekk nekk ci mais euh, bi lam lay jox ci poids ak sa taaru oto boo ko la la UMOA jox bu tolloo bi da ngay ñëw ñu nëpp euh, kanam loolu moo ñu indil ay problème pour que sénégalais xam ne ñun jóguñu pour yàq tamit mais technicité am ci chargement bi ñun mënuñu ko maîtriser xam nga li ñu xam UMOA mooy joxe tonnage am na oto yoo xam jox leen soixante tonnes am na oto yoo xam ne jox na leen cinquante tonnes am na oto yoo jox na leen quarante tonnes. Mhm. am na oto yoo jox na leen vingt mhm. euh, sax. Mhm. mais dañ ne kenn ku nekk lañ la may yam sax boo ko ëppalee nañ la duma ñu d'accord nañu bu dee ci gabarit bi quatre mètres cinquante la ku yóbbu loo xam ne sa taay oto ëppalee quatre mètres cinquante nañ la duma te duma gi passé wul machine bi bu ñëwee day sonné nga fay cent mille francs ba pare wàcc li ëppoon ba tax machine bi di bu dee ci poids am na signature bu ñu defoon ak ñu ne kat juboo ci Albarka Diallo fii dootuñu xool ay tànk bu ëpp bu ëpput ndax may nañ ñu léegi vingt pour cent ci suñu marchandise ak cinq pour cent ci défaillance su machine bi bu jotee suñu ministre bees fii ñëw moom bi mu ñëwee bi ñu toogee keroog altine nee naa ko lii laa juboo nag Abdoulaye Daouda Diallo mu ne ma ñu ma ko kii bi ma jox ko moom la yaa fat problème waaw kon xanaa damaa def war doon na xëy bu ko doon te xam naa ne Abdoulaye Daouda Diallo kenn gënu kaa nekk euh, Sénégalais mhm. kenn gënu kaa bëgg réew bi mais xam na ne ànd noonu la Sénégalais war def ak yeneen réew yi bañ arrivé do baa bu arrivé Sénégal di arrivé bu arrivé yenn pays yi arrivé mm. maanaam bu tolloo ci raam nay raam bu dee ba ci kanam sax muy dox ba santan mm-hmm. mais dafa jëkk rek daw dem fële léegi nag rek du suñu problème ñun liy réclamé ministre mooy vingt pour cent ci suñu euh, tonnage ci marchandise cinq pour cent ci wàllu machine ci à défaillance mm-hmm. boo ko boolee muy vingt cinq moo mu jëlee ko ci vingt cinq indi ko quinze pour cent ci marchandise ak cinq pour cent ci machine bi bu ak à défaillance ñun nag loolu lañu wax ne mënuñu ba pare ñoom même loolu ñu joxe sax le 31 mars day day le 30 le 31 mars daal arrivé la maanaam li ima wax yëpp Sénégal da koy appliqué à la lettre xool ko mën ak ko mënut maanaam day arrivé moom xerang gi moom day arrivé le 31 mars day arrivé te so sonn li ci diggante bi day arrivé te ñeneen ñi defar guñu. d'accord léegi nag suñu fret bi dama ne 40 pour cent ñàkk nañ ko. 40 hmm. pour cent ci fret bi. Hmm. dem na léegi dem na feneen yooyu day bokk ci liñ su wax nañ aussi nga oto buy daw te du borom du doxul. géey dafa yomb te bu géey amee ñu ne lu tax oto bu départ dakaar war a dem ba Rosso dëkk bu mag bu mu war dem taxaw fa maire ba bind na këy na sama dëkk bi bu fa oto xam na taxaw fii ba Guinée Guinée Conakry dëkk yu mag yëpp suñu war a taxaw maire bind nañ ay ay ay ay ay arrêté ne bu fa oto taxaw hmm. fii ba Mali la même fii ba Kidira la même chose kon oto bi ngay départ Dakar rek te jëf te ñëw ba saa bu eggee hmm. te bu géey ñu ne leen léegi maire bi biñ gisanteeg Umar de ministre des collectivités ñu ne ko nag léegi maire comme bind nañ kay dim fu ab taxaw mairie bu nekk na aménage sa dëkk moo xam avant la moo xam après la def ko latérite bu ko fee def fa toilette dafa fa te ñun pare nañ pour fa mais l'essentiel na oto yi jóg tali bëggee nelaw nelaw buñ bëggee noppalu noppalu bëggee lekk lekk buñ bëggee julli julli buñ bëggee am besoin naturel def ko fa ba mm-hmm. sa xel dal sa oto am jàmm nga am jàmm nga yëgat ko tali bi loolu dina indi wàññi accident ba léegi loolu ñu ngi koy coow ba amul benn maire bu defar benn aire amul d'accord yooyu bokk na ci bi def carburant bi dafa cher. Mhm. candidat Macky Sall bi mu soxla réew mi dafa waxoon lu am solo dafa nekk carburant mënu jóge Sénégal mm. dem ba Mali ba pare gën faa yomb moom kombaam yi jàpp leen ni sama bi su nekk président mm. Sénégal mooy gën a moins cher carburant que Mali parce que fi mm. ñu tàcc ko mais moom toogee ba léegi Sénégal gën a cher la. dañ koy fàttali parce que du luy sos te lu am la te xam-xam la koy waxoon te li mu waxoon alxuraan la aussi mhm. beneen bi mooy wàllu tracasserie bi dañoo gis si diggante Rosso baanu ginnaaw Rosso ba Dakar ëpp na ñaari junniy poste Kidira mhm. ba Dakar ñaari junniy poste région fi korom frontière bu nekk ak Dakar ne man ñaari junniy poste poste yoo xam ne douane police gendarmerie eaux et forêt fi si installé mhm. ñu ne le contrôle li ñu souhaité mooy UEMOA nee na frontière ba capitale bi trois postes de contrôle mais pourtant. li UMA wax moom leneen lañ ci jël muy muy règlement 14 muy fii ci kaw mais UMA wax na trois postes contrôle. Mhm. ñu ne nañ indiwaat na comme yéen jël ngeen trois postes contrôle UMA euh, ci péage bi jël leen trois postes contrôle yi trois postes contrôle yi lañ ko soxla. Mhm. muy un contrôle sérieux fiable assuré pour le bien-être des man bu ma ñëwee muy un gise clinique léegi poste bi bu ñëwee dafa am douane am police am gendarmerie am eaux et forêt am douane am ministère de la am ministère ñëpp ñëw bu oto bi ñëwee kenn ku nekk defal li ci war a def hmm. jàmm na ñooy bu fa jógee ñu jox ko këyit war naka yow jaar nga fii mu demaat deuxième poste mais loolu bu ko rafet Sénégal yi ci man bu ma wéetee man naa waxtaan ak moom proposé ko loo xam ne dina ko nungul ma demee sama oto te bu dee bu dee gisi bi la du ma ko a wax man mi doon yore sama xaalis dafa ne la xaalis man damaa lu ne dootuma ko man mais ki taxoon ci tamit tamit di séntu xaalis tamit dootu a ti réewum Sénégal nekk ci jàmm mais tant alkaati bi ñoo beru fële tant que gendarme ak bi ñoo beru fële ku leen na seen dëkk bi am na sécurité ku tooñ bu la mën a baal baal bu mu la kaay fay buur dagg reçu nga dem ci dem mais la ñuy yore kooku mu la amu reçu boo demee commissariat ñun amuñu reçu mu ne ko nag ma ma dem uddi ci xaalis loolu moo doon bitu attestation mais yow dama yor sa xaalis may fay ñun amuñu reçu attestation lañ la defal waaw madame léegi nga départ Dakar war a dem wurusoo gi nga ñëw mbuur dëkk bu ma neex laay tudd baax dañuy jëf ñaari ñu attesté la pour deux jours mais deux jours mënoo jël wurusoo gi ñëw léegi nag dara mujj yow yow sa bopp góor ko ma day mujj jël xaalisam moom fekk agent ba mu taxaw mu ne ko man lii mënu ma man maa lay man maa lay neexale lii pour ko jox ma sama pièce ah. pour rien que pour am jàmm parce que dañ la tegal benn contrainte ah. te wuru ma ko woon jox ñaar dem dama woon dagal rusi ma dem sama mais bëgg naa rusi neen amul rusi te boo demee ci commissariat doo fekk rusi boo demee brigade doo fekk rusi mais loolu bu dee dañuy liggéey réew mi waaye yàqay rusi bi ci la ñëpp bokk mais du indi rusi hmm. mais foo dem ñu am ñu rusi attestation du tous loolu bokk na si si si problème ak convention collective convention nit ñi dañu liggéeykat yi dañoo war a ay déclaration IPRES ak caisse sociale am na âge bu ñu fa eggee dem retraite ñu lay mën a toppatoo seen wérgu yaram ñu xam heure bu ñu xëy heure bu ñu loolu bokk na suñu suñu suñu plateforme taboo yi ñu dëkkale di ñu ko kole dëkk boo ñu tegal la sa xam nga li taxoon ñu indi ko fi Abdou Diouf indi woon ko ni góor xuma xam ne maa tay lay def jël oto bi teg ko a ma daana mun faa toog du ma xaar dañuy jël sabo ko sabo da kaa def benn société bu tudd SOGES nga xam ne moom mooy gérer sabo yi bu ma ñëwee ñu sanctionné ma sévèrement mais léegi oto bi da nga koy bàyyi loolu laa sax tali bi nga dem taxaw ci suuf baa war taxe annuel fay taxe annuel ba journalier Diallo bi ñu ko sonnee daf na nañ Sénégal jouer la responsabilité comme doomu Sénégal bu doon ci beneen réew boo defee accident day fay fa mu taxaw te yeneen yi ku ñëw fii boo defee accident ñu constaté ko sa assurance CDO comme yeneen yi ne wax nañ ba sonn mënuñu ko nañ def doomu doomu kenn ku ñëw fii boo defee accident nga fay ko force mais loolu lépp wukk ko ngir soxor mais daa bëgg ñu ñu Sénégal yi bu ñu génnee réew mi mm. yooyu nag te maintenant parfois on a la nostalgie des des décisions de de Abdoulaye Daouda Diallo heureusement ak yeneen muy fukki ak ñaar hmm. Dakar dem dikka yooyu tudd nañ ko ñun suñu parc de vétis ñu war a renouveler parc renouveler wuñu parc jël Sénégal di dikka Dakar wala ko mu transporté Dakar mu bàyyi Dakar waaye dem di xëccoo ñun région yi c'est pas normal war gaynde yaa ngi fii amuñu droit def transport te ñu ngi leen bàyyi ñu transport madame yooyu bokk na ci li nga xam nañ ko ministre bi démb ki yoon ci waxtaan boobu sax laa doon bëgg ñëw tàmbale ngeen ay négociation ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor wàllum transport négociation yi négociation dafa yéex a commencé tey jii lan lañ ci mën a jàpp ñu ngi commencé négociation yi depuis le onze ministre transport recevoir ñu ñu wax ko ci wàllu règlement quatorze bi wax ko ci suñu soxla fukki fan ñaar yëpp moom tamit mu def lu am solo loo xam ne dañ ci gërëm muy maître Oumar Youm dañ ko ci gërëm bu baax moo ci siy tiital ndax en séance tenante lañ toog la jël téléphone am moom décroché ñu audience ci ministre des forces armées décroché ñu audience ci ministre de l'intérieur décroché audience ci ministre des collectivités territoriales ba pare wàññeeku gunge ñu ak cabinet maanaam secrétaire général bi bu ministère bi gunge ñu ñun audience bu ñu defal ministère ministre ko yooyu bi ñu paree nag ñu ne démb la évaluation boobu nag ministre bi nekku fa secrétaire ba li ñu doon mu wax ne na li muy def tey li muy def suba li muy def ginnaaw suba mais ñun dégg nañ ko mhm. mais amul fenn fu ñu ko séenee ci këyit wane na ko ba bu ëllëgee nga yoon amul accord verbaux rek la maanaam wax ci ngelaw rek la même bu ñu ko gëmee tamit amuñu droit ñun en tant que syndicat mm. ku xam syndicat ni muy doxee nga toog ci naaw table négociation jubóo ak sa bi ba pare jéego sa ak loxo yi ne dem sa base ne waa jubóo bàyyi nañ ngelaw bi ndax la moo tax ñu ne tant que amuñu signature bu dëggal ne point sànga bii léegi la fii mm. suba la bii gënaaw suba la ñun duñu mën dem suñu base mm. waral biig ñu ne nde du leen garaw su mm. nekk ne ubbi nañ siy bunt ñu mënti oo ñu dem uji la l'essentiel nañ am consensus liggéey bi nag àndoon nañ ci ak Maliens yi ànd ceeg Gambiens yi mm-hmm. ànd ceeg waa Guinée Bissau ànd ceeg waa Guinée Conakry ñëpp bokkoon nañ ci parce que kenn ku nekk am nga revendication boo tegal sa réew Sénégal bi li mu wax moool bu mu kenn ku ne da ngaa tegal morom mbagg parce que ñoo bokk mm-hmm. yëpp ñu te Sénégal réglul problème ñun bàyyiwuñu grève kon da ngeen di continuer seen grève bi réew ah? mu réglé sa problème tamit te Sénégal réglul ay doom ñun duñ bàyyi grève da ngeen fas yéene continuer grève bi dama lay leeral na la mm. réew ñu ko bokk yëpp kenn ku ne am nga problème boo jox sa gouvernement mm. gouvernement yooyu buy réglé seen problème doom mm. te ñun suñu gouvernement réglul suñu problème ñun buñ bàyyi grève duñ ko bàyyi la tax ñu ko bàyyi mooy kat fukki fañ la ak ñaar ah mën nañ la jox quatre ñu bàyyi garaaw bi mhm. mais ñu dara lu waxu kese accord waxu kese la bu ñu leen nag waa leen syndicat dafa am ñu doxee man de ku ma déggal ñu dañuy dem grève ba saa ba sàmm di ci dem. d'accord am nañ bëgg ba ñàkk. te consigne boobu laa joxe dama ne. Mhm. ba oto yëpp kër daw bàyyi ma fi. man ci grève laa nekk tant que aw ma ci grève laa nekk yàlla doon suba de oto yëpp doon liggéey man en tant que personne morale syndicat bi ba léegi ci logique gu geraw laay nekk tant que aw ma signature uh-huh. damay jëm ci benn point rek yéen ñi nga xamante ne yéen a yëngul ci wàllu transport gis nañ ne dakaar dafa xat ci ay jamono yéen a ngi doon sàkku ci yenn maire yi ñu aménager leen lu ñuy duppe ay aire de repos pour ngeen mën a stationner yéen les routiers tey ji projet boobu fu ñu ci toll ndax defalal nañ leen seen i doléance wala tamit ay waxi kasaw kasaw la yem. kasaw kasaw donc fii de fii am nañ sax amoon nañ ba boog moom fees ñu utalaat utaal leen beneen à côté. Mhm. mais sénégalais yi moom keroog ba ñu waxee ne daggal leen ci forêt bi garage ba ma ko waxee dañu il n'est pas question ngay wax ay forêt ay garage waaye de keroog ba terre bi soxee ñëwee de ñu utal ko gaar dagg nañ forêt ba dafa teer ay hectares yu bari dama ne dañu war a respecté nit ñi transport ci ci ci doomu réew mi la bokk ut si accident yi coow yëpp li koy li koy créé xam nañ ko ñàkk noppalu oto du noppalu si warul noppalu surtout ponkalam camion tey buñ buñ buñ aménagé woon fii gaara boo xam ne bi tey jii oto yëpp ku ñëw di da nga dugg ku am sa bon de chargement war dem fort nga da ngaa yor sa bon jubali directement garaam mu leewoo port woo sementerie dem sa yoon ku amul bon nga dugg ci gaar bi mhm. tànk amoo boo doo xañ da mbaaw ba pare ñu fay ay taxi mairie mbaaw mais man gisuma lu war a tax duñ ko def mbaaw soriwul Dakar mhm. ab àllaa nga fa boo xam ne amul sa garab buñ ko aménagé woon camion yëpp dem fa ku am bon boo jëli ji jël ko dem directement Dakar jëli ko wàññeekuwaat ku amul bon bu fu jógee mais loolu moo ñu gënal mais dara bàyyi oto yi ñu tëj tëj rek foo accident amee rek ñu ne 2018 euh, euh, tant de mort amoon na tant de blessé am na i blessé rek. Mhm. mais cause li koy a dindi duñ seen yoon nekku ci mhm. kay mhm. altiné. ñu d'accord nañ kalaat ñu def permis à point dëkk boo xam ne nag yeeg fas yeeg nit ñi ñëpp a ñu ko tali kenn ku nekk yaa moom sa da ngay gis ci biir dëkk bi nag yu jàll doo gis sax seen borom xar yu jàll doo gis seen borom mbaam yu jàll doo gis seen borom tali dañ sécurité ko nit ñi orekoon jaar ci passerelle duñ fa jaar yi borom kenn ku nekk def lu la neex léegi nag ñu ne facteur humain effectivement facteur humain la mais borom jur gi facteur humain la jur gi jur gi dem facteur humain la trottoir bi waa ji toog waroon a jaar ab jaaykat ñëw occupé ko mais facteur humain la ñu laaj ko téléphone kon ñoo ñëw seen facture humaine yëpp dégg ciblé conducteur dañu wax mhm. dañu conducteur da mhm. conducteur yaa ko bokkal mooy ñan ci a contrôler ne wurul dem ko mu dem mais facture humaine la man mi conducteur c'est tout Gora lay jaajëfal jërëjëf di fàttali ne ñu ngi lay sa euh, euh, sa organe yëpp kaw ba ci suuf. Euh, jërëjëf mbokku auditeurs yi ñu fàttali ne yéen a ngi deen déglu ki nga xamante ne moom moo di Gora Khouma Gora Khouma nekk secretaire général bu union des routiers du Sénégal rajo Rewmi FM mu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi.